ñu ngi ziyaar ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan ci yàlla jalla jalaaluhu wa azza mu defal ñu jàmm ak sutura ak tawfiq ak taysir mu defal ñu xusnul xaatima mu defal ñu saadu daarin di wax ne delsiwaat ak ñeen yéen tey jii gannaaw bi nga xamante ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dogal na ñu dugg ci koor koor bi nga xam ne moom la ñu waxoon démb ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran mooy weer bi nga xam ne yàlla ne ma leen ko wàcceel indil leen ko moom alquran ci biir weer wi mu mel ni alquran mu ngi baaxoo wàcc yàlla ne wàcce naa ko ci biir weeru koor te loolu gën na ko leer ci suratul qadr bés mun ci àggee danañ ko indi waaye di ndokkeel bokk Sénégal bokki Afrique ñëpp bokki àdduna wërngal këpp fii ci seen place seen penc mi tudd 7TV nga xam ne alhamdulilah rabbil alamin àdduna wërngal këpp gën nañ koo xam muy gën di yaatu ñu gën di ko xool di ko séen fépp ci àdduna bi waaye tam di gën di siiw gannaaw bi nga xamante ne yàlla dogal na am lu dal kenn su ñun ci njaboot ji ci borom kër gi moom na Ndour Faye yal na ko yàlla yëkkati te ko waaye mu dooleel ko ba lim bëggoon limu mu ca ndawam ba tey ngir tele bi jëm ca kanam jëriñ réew mi jëriñ àdduna bi yal na ko yàlla defal di ndokkeel xalif généraux yëpp di ndokkeel kilifa diine yëpp di ndokkeel président de la république ak soxnaam di ndokkeel ñi nga xam ne itam ñooy chef d'opposition yi nga xam ne ñoo fi nekk opposition bu Sénégal bi nga xam ne kenn ko ci nekk ci ñi nga xam ne responsabilité bi nga xam ne ñaan nañ ko yàlla jéem ko pour dugg ci mu yërum réew yan yàlla jàppale kii dem waaye yan yàlla jàppale kii ñëw mu mel ni kon démb ñu ngi yemoon bi ñuy tëj doon jaale ku mag kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan waaye kilifa lépp waaye nitu yàlla di Cheikh Islam Alhaji Ousmane Maam Ansou Niang yàlla jëlee ko ci weer wee passé ci mois décembre 27 décembre mu dund téeméeri at ak lu teg di ko ñaanal yàlla mu may ko leeram njëggalam ngërmaandeem te ñu ñu fi des mu taas ci barkeem di ziyaar ki nga xam ne moo ko fi wuutu ci barab ba ci daara ja ci kër ga Sayyidi Cheikh Ahmad Tidiane ña waaye di ñaanal ki nga xam ne mooy kilifa kër ga dëkk ba yépp imaam Mouhamadul Mahdi Cissé bi nga xam ne moom la yàlla denk xam-xam dénk ko njaboot ja mu uuf leen yàlla jàppale leen te dimbale leen ak ñi nga di jàppale ci ay rakku sëriñ bi ak i soxnaam ak ñoom ñi nga xam ne nekk ci daara ja ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci dëkk boobu ci Sirmang waaye sax ci ñombaatu ba mu mat sëkk di ñaanal waa Siin ak Saalum di ñaanal waa ñoom mbaatoo yàlla dafa leen jàmm ne ki ngeen manqué le ci seen réew ci seen kër ci seen gox di maam Ansu Ñaŋ neexul yombut waaye yàlla la neex yàlla la soob mu jël ko ndax ku lu mën alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik zul jalaali wal ikraam yàlla yokku leeram te tax na ci barkeem waaye itam ñi fi des ci xalif généraux yëpp kenn ku ci nekk yal yàlla may la yal na yàlla may la yal na may la bi maanaam yal na yàlla may la wér yàlla may la gudd fan waaye yal yàlla may la nangu ñaan ci la ñuy soxla ci yow pour nga ñaanal leen imaam yi ulama yi nekk Sénégal yëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla jàppale leen dimbali leen ba li nga xam ne mooy weer wi lañ leen di ciy laaj ci sàkku xam-xam ci xam-xam bi yàlla defal leen ko bokk yi mu mel ni kon bu ñu ñaanee la ñoon ñëpp nag ñu dugg nag ci mawdu bi nga xam ne mooy woor weeru koor weeru koor ki koy woor day fekk ne baalir aaqil mat na am na xel takk mu kallaf la waaye ñu ko ko jàngalee balaa c'est islam en doon wax ne lu ci nekk balaa bu ñu waxee ne di ans nga war a tàmbali lii yow balaa loola war nga ko jàng bi xam ko pour 18 ans rek nga mën ko tàmbali bu ñu waxee ne midi lañ war a dem yow balaa midi war nga pare pour midi nga mën a nekk ci yoon bi bu ñu waxee ne àllaaxira yàlla dafa xisaab nit ñi kon balaa ngay àgg àllaaxira balaa ngay dee nga dund nga defar sa dund ci àdduna bi balaa ngay yegg foofu bu ñu waxee ne bés sàngam la dem bés booba balaa balaa muy ñëw fekk yow pare nga pour yow bés bu ñëw cete rek nga mën a dem waaye kon imaam yëpp nañ leen di ñaanal wér ak gudd fan yàlla ma leen xam-xam boobu waaye di ñaanal jigéen ñi ci waañ bi nga xamante ne kenn ku ci nekk mu ngi kutti kutti ci dëkk bi ci marché bi ci fu ne di jël see caqaay di jaay pour mën a am loo jënd pour mu loo mën a yónnee kër gi xam ne jigéen ñi loolu mooy seen sag waaye itam loolu mooy seen sutura kon yal na jàppal leen dimbale leen ba la ñuy jënd yan lañ ko am waaye fañ ko amee tam yan la gën a yomb kon njëg yi ak prix yi yan la ko yàlla yombalal waaye ñii fi xam ne ñoo fi nekk taxaw loolu itam yan yàlla may leen taxawaay bu dëgër ba ñu mën a saytu loolu seen responsabilité ci njëg yi nga xam ne moom la ñu jundee jëndee ci dëkk bi. waaye tam di ñaanal borom kër yi di joxe dépense yi yàlla may leen jox leen dépense yàlla may leen ne ko suñu mag Oustaz Alioune Sall doon waxee ne yal na def dara ci poose yi kon poos yi yan nañu fees dell incha allah di ñaan itam yàlla jéggal ñu te yërëm ñu ci àdduna ak ci àllaaxira waaye di ko ñaan mu yombalal ñu suñu koor nga xam ne weeru koor dafa ñëw ngir defar doomi aadama <coughs> ñëw ngir xiif déedéet dafa ñëw pour defar bàkkan bi dafa ñëw pour sellal yaram bi dafa ñëw pour wéral la dafa ñëw pour li nga xam ne moo nekkoon ci biir bi ci lor <coughs> wala boog ci ay feebar mu génneel la ko mu roccil la ko pour yow nga mën a nekk nag koo xam ne da mën a jaar ci yoon bi mu sayyiduna nabina Muhammad na alayhi wa sallam doon wax ne suumu tasixu ne doo leen dee leen woor ne woor leen wër leen bu ngeen wooree da ngeen wër tax na ba waxuma la ñi ci weeru koor kese nga xam ne yàlla maa ko moo koy fayal boppam waaye woor ci sunna ñetti fan yi ngay woor ci weer bu ne loolu dem na bi médecine taxaw ne loolu bokk na ci liy guddal fan bokk na ci liy wéral nit bokk na ci liy wàññi ay jàngoro bokk na liy kuppe li nga xam ne mooy ligne bi feebar yi jàngoro yi di jaar pour lor la mu coupé ko mu arrêté ko ba yow nga mujj nekk ku wér. mu mel ni kon mbokk yi weeru koor boobu ñëw na na nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne xaaj ñaa ko ñetti xaaj shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu yatqun min an naar ne la boo xam ne ñetti fukki fan la fukki yu jëkk ya yërmande la yàlla danaa ci wàccee yërmande danaa ci indi yërmande danaa ci sédd yërmande yërmande boobu dana tax ma tàmbali ko ci asamaan jël buntu aljana yi ma ubbi leen buntu safara yi ma leen mun ma jël seytaane yi ma chaîne leen takk leen benn dëgër yeewu leen teg leen fële nit yii man yàlla maa koy tàmbali ci kaw asamaan soo ko wàcc ci suuf nag ma wàccee sama ma yërmande ba lépp lu ngeen def ci lu baax di ko wax ci lu baax di ko joxante ci lu baax di ko saraxewante mu lépp ma fulul ko ndax lan weer la boo xam ne promotion la ci lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy wax wala mu di ko jàng wala mu di ko lekk wala mu di ko joxe donc lépp luy ñëw ci yow promotion la waaye lépp lu jóge ci yow dem promotion la lépp looy def promotion la waaye lépp looy wax promotion la li ngay dund promotion la waaye dëkkin bi promotion la ba 30 jours yi mat mu ne nag fukki fan yu jëkk yi ma def ko yërmande wa awsatu maxfira ma teg yeneen fukk muy 20 jours mu ne fukk yooyu ma def ko muy njëggal mu ne mu jeex ma teg yeneen fukk fukk yooyu mu ne muy ñett ñetteelu fukk bi mu ne ma def ko muy mucc jotu ci safar yéen a ngi ci safar kon mu mel ni kon dugg nañ kon ci weeru koor waaye ñu duggee ko ak yërmande ñu duggee ko ak mbaax ñu duggee ko ak ni ko waxee ne ci kaw asamaan futtihat abwaabu samaa wa uxliqat abwaabu niiraan waaye wa sulsilati shayatin yal nañu ko yàlla defal te loolu nag su fekkee yàlla def na ko yan nañ ko xam te yëg ko waaye yan nañ ko dundal suñu bopp ñu xam ne kon lépp lu ñu defal kon nekkul ci seytaane waaye fa bi ni indi anfusikum ci yéen la jóge su boobaa kon ñu dugg nañ ci wér boo xam ne wéru yërmande la yërmande googu nag bu ñu ko tàmbalee di wax dañuy wax ne nit yërmande la mën a dund yërmande la mën a dundalee waaye yërmande lañ ko mën a dundalee bi ma anaa yow yërmande ci ma nga mën a dundal nit ci yërmande ci leen la mën a dundal yow waaye ci yërmande nga mën a dunde nga xool ñett yi lépp lu amul yërmande rek fitna nga fa te wal tax yàlla bi muy fitna ak problème wala mu di ko misaal dafa njëkk a wax ni fitna ashaddu min al qatl ne rey bakkan wala faat bakkan sax ne fitna moo ko gën a métti waaye mu waxat pour ñu jàngal ñu lan mooy fitna mu ne fitna bi mu koy tere mu ne ki koy def na ko moytandiku ndax nekkul na ci moom lay yem ah kay mu mel ni mu ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa na ngeen moytandiku fitna na nga méttandiku coow problème jaxase yàq nappaaje lakk lakk jàmbur lakk barabu jàmbur yàqal nit tooñ ko yàq xolam jaxase ko dofloo ko jiixi jiixal ko mu ne yii yëpp yàlla ne ki koy def na ko wóor ne yemul ci moom bi koy def moom kenn laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa bu yem ci yow bu yem ci yéen ñi koy def waaye dana dem bee mu àgg ci ñépp mu mel ni tey jii bi nga xamante ne yàqal nga doomi aadama ba nga yàqee oto waa ji yow benn pono nga bënn ana ñaata nit nga tardeel benn kër nga lakk ana ñaata nit nga yàqal magasin jàmbur nga lakk fañ koy sutur léewoo fa muy jaayee ci Auchan ba foofu nga lakk <coughs> nit nga gaañ yëg nga tur deretam ana ñaata nit ñoo war a jóg pour lii bu mu nekk ak pour jàppale lii ak pour dimbale ak pour métit lu lii nga foog ne beneen nga ko def ndekkee yow yaa ngi ko def keneen ba sa bokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal ba nga defee lu bon ñoom ñu ànd ca ruus ñoom tam kon xam nga ne li nga def yemul ci yow bi nga xamante ni itam yàlla dogal na nga doon ku yàlla dimbali ci baat ci wax walla mu dimbale la ci loxo walla mu dimbali la ci pexe walla mu dimbale la ci xam-xam mu ne bu mu yew ci yow wesaare ko moo tax mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yaqul xayran aw li yasmut kon lii yëpp dafa delluwaat ci yërmande bi nga xam ne moom ngay dundalee moom lañ lay dundalee te moom ngay dundee bu lay amut ak doo dund su fekkee nii yërmande nekkul ci géej gi boo duggee ci géej gi day tàng jir ëllëg mu nekk ndox mu nekk acide acide boo xam ne day yàq sa yaram bu yërmande amul london yi bu am oxygène bu baax sa bakkan faatu bu jàmm amul ci dëkk bi di amul ci dëkk bi jàmm du am ci dëkk bi bu jàmm amul ci dëkk bi nooy def ah. ndax da nga fàtte ba ñuy wax ni am na feebar bu dugg ci réew muy corona Covid 19 corona dugg ci dëkk bi ñu tëj jumaa yi tëj mu nekk benn na boo xam ne tegu na ci jaamu yàlla yi mu dem ba roplaan yi doxatuñu aéroport yi tëj nañu nit ñi dematuñu. jumaa ji kenn dootu fa jullee buy jullee da ngay sa moroom ndax ragal mu wàll la ndax ci benn nit la yem déedéet yërmande ndax danga nga fàtte ne ci ba ñuy wax ne senegal am na ay nit ñu jóg ay coow ay xeex am ci réew mi ay lakk ay lakkante yàqante ci loo xam suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo amul lum ñu tere nëbbuloo ñu ko ñu lànk bañ yàlla ne kon la tarawna jahim yemuñ ca xanaa da nga fàtte ne am na bés nga bugg a dem ci boutique ba mënoo àgg ci boutique ba ngir mbedd ma am na grève boo xam ne mu ngi am te fa la ñuy jaar te bu fa jaaree mën nañ laa jàpp wala ñu boole la te nañuy gaañ waaye da nga fàtte fa nga doon jëndee ci marché ba lakk nañ ko sa client bi nga xam ne mooy wax ne clientèle yaa ngi ñëw amatul client amatul clientèle amatul dara amatul ndax lan lépp lu ñuy jaay léegi lakk nañ ko fa ñuy jaayee tëj nañ ko ndax bu yërmande amoon loolu am dana am kon yërmande ci lañ mën a dund waaye bu la yàlla dénkee nag baat wala mu dénk la loxo lan mooy loxo bi mooy lan al muslimu man salima al mi min lisaanihi wa yadihi ñu waxul weeru rek kese waaye weer bii nga xam ne da koo ubbee ci yërmande mu ne ko na nga am yërmande ci sa làmmiñ ba lépp loo wax mu baax mu doon yërmande mu jur yërmande waaye mu jur jàmm ak dal ci dëkk te bu mu indi fitna <coughs> naka noonu mu ne su fekkee ne itam yàlla dénk na la loxo signature boo xam ne boo ko siñee ñu tëj nit da xëcc rek signé ah atte nañu bare de yow yaa war a signé lu ñu atte diw dañ ko war a rey nga sañee ñu rey ah atte nañ la pare de diw atte nañ ko yaa war a sañee nga sañee bañ a signature tëj ko ci kaso bi ah yaa ci des de heure bi jot na de loo wax rek loolu la def nga jël micro nga wax wax lu bon ah war nañoo jóg de nga jóg dem dawal sa oto ak sa yaa ko daw sa loxo foo jëm ci lu bon ah war nañoo wax de. lu ñuy wax nga jël wax lu wax lu ñëw wax lu ñaaw wax lu bon mu ne kii tuddee boppam jullit ki jébbalu ci yàlla te loolu chrétien bi ci la bokk juif bi ci la bokk ndax ñoom ñëpp dañoo jébbalu ci yàlla al mooy ki nga xam ne man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi mooy ki nga xam ne nit ñi mucc nañu ci ay bii génnee ci loxoom ci signature ci bigam ci bindam ci journée ya daa bind benn article ci journée yi rek ñëpp jaxasoo ñëpp tiit ñëpp am problème bul bind dafa bindee benn message yónnee ko rek ñu ne du dañ ko war a rey ñu rey ko dafa bind benn message wax rek ñu ne tuumaal nañ diw bul bind bul yónnee bul partager bul envoyer dagat nit juum na wala mu jublu si indi la won la lu bon ci téléphone portable lu bon la lu ñaaw la bul partagé partagé partagé message la bul wax lu bon bul partagé message la boo xamante ne yërëmu na fa nekk bul partagé dencal yaa ko moom yaa ko moom jëlal moomuloo ko dindil effacel soo bëggee noppalu ci lu ñu rek effacé lu ñu rek effacé baax la ñëw na partagel subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ku ko wax am lii partagel astaghfirullah 313 partagel ku jàng ayatul kursi qul wala falaq ak naas yàlla mu cat ak bët ak gàllankoor dëmb yi yàlla def mu la mu nekkoon loolu partagel dëmb xul wala falaq ak naas ayatul kursi mën na duna jàpp partagé ko lu bon la bu partagé bu defee lii kii dee bu ko def bu ko partagé bu defee nit ñi yàqule bu ko def partagé lii nag mooy yërmande fa muy matee nag mooy kon kenn ku ci nekk si boobaa yàlla ne ah kon sama jaam yi la ma leen digoon la ma leen waxoon ci weer bi kat ñu nga ca mu du ne kat ñoom. man yàlla man maa moom lépp ma digg leen la ma leen dikk ci mbaax digg leen la ma leen dikk ci yiw waaye digal naa leen tam ñu def lu baax lu baax waaye ñu nga ci lu baax bi alhamdulillah ñu ngay baax digg na baaxal di dem kon ñii mérito nañu yërmande ñii mérito nañu ma jéggal leen ñii mérito nañu ma musal leen ci safara comme weeru koor la nag kon kenn ku ci nekk nag nga jéem yërmande ba mu waxoon ci bi ngay jaay dafa war a feeñ yërmande bi nga waxoon ci bi ngay wax dafa war a feeñ yërmande bi nga xam ne moom la la waxoon ci booy wax dafa war a feeñ yërmande bi nga xam ne moom la waxoon ci booy bind ci booy signé dafa war a feeñ yërmande bi mu la waxoon ci booy yëkkatiku ci booy jóg lépp dafa war a feeñ dafa war a fës fës ci njënd bi ak njaay mi fës ci dimbalante bi fës ci joxe bi fës ci tabe mooy ba ngoon jot 5 heures balaa 18 heures 19 heures loo amoon ci alal na nga ko xaaj na nga joxe fexeel bés bu ne ci koor gi 30 jours yi ci sa alal nga fexe ne bés bu ne lii danaa ko joxe ba mu mat pourquoi pas 150 000 150 000 bés bu ne nga financé 50 000. maanaam cent cinquante mille ñett la bi maanaa ci weer bi ci fukki fan yi fukki fan yi fukki fan yi fukki fan la fukki fan yi danaa ci finance cinquante mille pour dimbale ko bii tam danaa ko def ndeysaan mu yomb be waaye lu tax doo ko mën mënuloo ko pourquoi pas quinze mille nga ne ci weer wi fukki fan yu jëkk yi danaa saraxe cinq mën na nekk aw ma ko de 1500 la am bismillah defal jënde ko tàndarma bés bu ne nga am koo ci jox yow fexeel rek yow ñaari ba ñetti nit bu ndogu jotee ama sa ñetti tàndarma ku ne nga jox ko ñetti tàndarma wala boog jox ku ci nekk benn tàndarma benn tàndarma benn tàndarma fukki tàndarma pas bés par bis nga séddale ko jaamu yàlla yi allahu akbar mu ne bul xeeb bu ma la koy fay dama koy ful ndax lan le premier ba le trente loo fi def ci lu baax dama koy ful loo fi joxe dama koy ful loo amoon déwén dinaa la ko yokkal kaasu kafe la bismillah man de aw ma ma ko jox yóbbu ko ci jumaa ja yóbbu ko ci jàkk ja yóbbu ko ci mbooloo ma fañ ne nga jox leen waaye déet am na ku ma dëkkal kat te amut te mënut muy gardien bi muy mbindaan bi wala boog muy jaaykat bi ci mbedd mi di fortaatu fukki dërëm ñaar dërëmu caaf dërëmu caaf juróom dërëmu caaf la am mu war a dajal lu mu war a dawee ndogu ji yow kay jël si nangam ci lii bés bu ne boo jaayee balaa ngay wàcc rek seen kër jaaral ci kër gi nga jël sàngam wala boog ci boutique ba heure bu see demal ci boutique ba bàyyi naa fa kaye ba mu jox la da nga koo xeeb dana ne bu ko xeeb moo ci olof ñu ne xeebut yéemut bi maanaa xeebul tuutiwul yéemut mooy munta bëri bi yéem kenn da munta yéeb ki kiy joxe mooy yàlla kon ki koy jox xeebu ko waaye ki lay jox li ngay joxe itam li ngay joxe yéemu ko ndax mu la ëppale ba lay jox dama ne ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu huwa xayru raziqin mu ne loo joxe rek man yàlla man maa ko fay remplacer waat kon joxe leen awaluhu rahma yërmande googu bokk na ca ci prix yi la nga doon jëndee téeméeri dërëm di ko jaayee ñaar téeméeri dërëm wala nga di ko jaayee téeméer ak juróom fukk bi wéeru koor bi ñëwee nga ne man damay wàññi 750 laa ko doon jaaye te 500 laa koy jëndee jaay ko 750 léegi man danaa ko jaaye jaayee 600. wala ma jaayee ko 650 ngir yërëm ki nga xam ne moom ndax am na lu ma ci am lan la ci des bàyyil naa ko ngir yàlla jox naa ko ki nga xam ne moom mooy jënd dañ ko xeeb mun na bul xeeb yàlla ne ma maa la koy fuur waaye léegi contraire bi la nit ñi def la nga xam ne moo doon jar 5000 francs ci avant corps bu wëri ko bi ñu jaayee ko 10 000 francs wala ñu jaayee ko 11 000 wala 12 000 francs li nga xam ne moo doon jar 3 000 francs avant koor gi bi koor gi ñëwee ñu ñëw ñu jaayee ko 4000 francs la nga xam ne moo daan jar 500 francs ñu ñëw ñu jaayee ko 1000 francs mais 1200 ba 1100 francs teg ci ay wat nag barke Sëñ Fallu barke Sëñ Tuubaa barke Alaaji Malik barke Sëñ Babacar Si barke Maam Mbu barke Baay Ñas barke nangama nangama nangam te dara da ngay fen da ngay fen fen kese la fen képp amut moo tax bi salaay salaam waxoon ne jaaykat bi bu xamoon wax dëgg bi muy wax ci njaayam dinaa ko barkeel la nga xam ne moom la cay am ci résultat maanaa jaaykat boo xam ne lëndamalut nuurut nëxalul nëbbut ayibu la muy jaay te waatul ci contraire ba am ca njaay ba ne dinaa barkeel alalam lii dañ koy jaay mu yàqu lii dañ ko jaay mu xaw a nëbb nit ki bëgg naa jënd ñaari kilo mango waaye benn kilo bi dafa am lu ci kii nga ne kilo mango bi day 2000 laa koy jaayee mu ne ñaari kilo laa bëgg nga ne kon bii day am na lu ci yàqu nag mu ne ah nga ne ko benn kilo bii 2000 lay jar ma jaaye jaayee 2000 waaye benn kilo bi nag du mën a jar loolu parce que dafa am lu ci yàqu kon bu dee 2000 la indil 1000 francs wala 1500 ma jaay la ko waaye déedéet. da ngay jël nëbb ko ci suuf waat nag parce que nangam bii moo gën bii moo baax bii moo baax wala nga njëkk a jaay bu nit ñi bëri nga daal di commencé jël yu bon yi di ko booleeg yéen israel sam ne ne man ghashana fa laysa minna kon mbokk yi weeru koor baa ngoog awaluhu rahma dafa war a fës awaluhu rahma dafa war a feeñ awaluhu rahma dafa war a nekk ci pénc mi ñun ñëpp ñu péncoo ko ba kenn ku ci nekk am jàmm ci ki bëgg état mu yomb waa état ci koy wut état wut nguur mu yombal la mu jàpp la mu yor pour mu mën a am lu baax ki xam ne mooy peuple bi mu ànd ak yërmande yàlla ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi féete suuf ne man mi ci kaw man yàlla danaa leen yërëm bu ngeen yërëmee ñi ci suuf yàlla ne man mi ci kaw ma wàcce leen xéewal walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw dafa fataxnaa alayhim barakatin min alsamai wal ard kon mu mel ni waxtu baa ngi dem ñu ñaan ci yàlla mu defal ñu jàmm ak sutura ak xewal ak naataange di ko ñaan mu defal ñu tawfiq ak taysir xusnul xaatima sa ab daaleen di ko ñaan moom yàlla mu may ñu jàmm ci suñu réew mu def déggoo ci suñu réew ci diggante li ñuy tuddee ay constitution conseil wala boog li nga xam ne mooy waa état mu nga xam ne waa nekk waa pouvoir ñi nga xam ne waa nekk waa opposition ak peuple bu nekk ci diggante bi ñoom ñëpp yal na leen jàppale leen dimbale leen wàcce yërmande seen biir ba ñoom ñëpp ñu déggoo te juboo ni yàlla wax fee mën fee wàccee jàmmam. yàlla ne bu ngeen booloo bëggante jàppalante naa leen wàccee xéwal rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbi ajmain subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin